les vingt trois yu ñu dëgg ministre kii gouvernement bi jël ko ànduñu ci kon ñoom dañuy dem grève mais donc il est temps ñu woo suñu njaboot kuñ dëggal nag mu war a daje bi tey defe naa li xew ci salle bi kenn ku ne teg na ci bët tere ñu ku war dem grève mais ñun cadre unitaire bi demuñu grève ndax ku di ku ne syndicat rek xam revendication grève c'est normal mais mooy dernier ressort bi nag ndegam eggaguñu foofu rek. non à la kon sant yàlla. tey juboo am ñëpp d' accord nañu ni mardi ñun dañuy dem liggéey ñu war dem grève ñu dem grève mais ñun grève ñu dafa naa loolu leer si boobu ñëpp. ma lancé appel nag ci état bi ndax saa yu grève am ñi car oto yi yàq ñiy liggéey loolu nag responsable état ñoom nag lay adressé nag message bii bépp oto bi nga xam ne sécurisé ko. mais mu am ci gàllankoor mu ñu ñu yàq oto jàmbur ils sont les seuls responsables ñoom ñoo ko ñooy res dégâts yooyu loolu nag fii laa ko waxee nag ñu jël seen responsabilité parce que mënuñu nekk citoyen war a liggéey nit waruñoo empêcher du ñu liggéey nag te ñoom li ñuy seetaan loolu loolu ñu ko